ñoo ngi fii ci Ndamaatu konu seen Cheikh ci deux yi teg fi suñu ay mbokki taalibe yoo xam ne dañoo am taxawaay bu am solo boo xam ne dañ koo taxawu ci woote bi sëriñ bi woote ak kuréel bii nga xamante ne bi seen bi taxawal na ko mu junatun liman na sama xoo nga xam ne biñ xamee ne ñoom ñu ngi ci seen quartier bi di liggéey xaaruñ ci kenn ndax liggéey bi moom bu xasee ba ndox mi su xasee ba am rek day mel ni kenn ku ne la nga am ci moyen da nga ko ci def waaye bañ demee ba xam ne kuréel bi taxawal na sëñ bi taxawal na kuréel bi ci lañ ñëw fekk si ñu ci kër sëñ Tuubaa gi ngir ñu collaborer ak ñoom ngir ñëw ànd ci liggéey bi monsieur Modou Badiane mi ak ñi mu àndal ñëpp nga xam ne junatun bi extension la ci yenn gox yi nga xamante ni bii ay ndaw nekk nañ fa bëgg tey jàpp ndax liggéey benn liggéey la du ñaari liggéey moo tax ñu jël indi ko ci commission bi jox ko bàtt jox ko gilet mu nekkal ñu ndaamaatu nga xam ne lépp lu mu soxla day ñëw ci kuréel ba ñu jox ko mu mel ni benn liggéey la ndax ñaari liggéey benn liggéey la ndax sëriñ bi ku ne xam na ne bi mu taxawalee kuréel bi boole ci mairie bu Touba Touba ci kanam ak Hizbut-Tarqiyyah dana mooy ñeenteel bi kon sëñ bu duggee mel ñëpp dugg na kon ñu ngi lancé appel ci mboolem gox yi nga xamante ni bii ñu ngi kat yi di liggéey ñu ñëw ñu ànd liggéey bi xam ne benn jublu mooy am fexe ba ndox mi génn ci yi fexe ba ndox mi génn ci mbedd yi kon loolu moo tax ñu ñëw fii ji fekk suñu mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo leen intégré ci kuréel bi pour ñu ànd liggéey bi. waaw salaamaaleykum wa maa ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di nuyu mbokki jullit yi ak mbokk yi ma àndal si liggéey bi yëpp muy waa kuréel gi. maa ngi nuyu waa kuréel gi yëpp rawatina waa kuréel Dinatul Limanas moo ñoo ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale si liggéey bi liggéey bii ñu Serigne Touba Cheikh Mountakha jox pour ñu dimbale ni ñi si dëkk bi ah ñu leen di sant parce que ñoom ñoo ñu si jàppale doole ñu si ba lépp ñu si liggéey Eh, lépp lu ciy def ñu mën koo def nañ ko bëgg a defee di si mën a dimbale suñu mbokk jullit yëpp a ah, ñi ngi leen si sant bu baax nag ñi ngi ci taxawoo macha allah rafet na trop waaw jërëjëf. wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan an haadikin maridi wa marfaan li kulli haadin muslimin wa marfaan an kulli haadin mujrimin wa hajjatan liman bi duufin irtadaa ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومدركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل خير وسببا لفضل خير الغيب وسببا لدفع خير العين واغفر لمن بنوا بنا أهر فيه واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانوا على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا وتجعل البيت بقلب يخشون ولي في دعاء يسمعون مع القناعة بنفس تشبعون وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأزملا كنف سدرك أبل علي مع جملة أهلي يا صمد وادرس رادقا